subhaanallaahi walhamdulillaahi laa ilaaha illallaah am nañ leen ko diggee woon rek ci Ndiassane TV ñu ngi ci retour à la source ci ak El Hadj bu Bou ba léegi ñu ngi taxaw ñenn ci nga xamante ne dëgg yàlla ci kilifa yi dëkk bi lañ waaye bokk ci nga xamante ne ay naataango Cheikh bu Diop lañ lan nga ñu mën a wax ci Cheikh bu ak bisam bi. sëñ bi Kunta bi ginnaaw bu ñu la nuyoo la. macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di leen di nuyu yéen Ndiassane TV euh, di rafetlu bis bi bi nga xamante ni kii nga xamante ni moo ko taxawal muy El Hadji Cheikh Bou di kenn suñu man mën naa ko seede ci lu bëri. waaye doyu ma ko it ci seede ndax ni ma men ak moom du ñu ñaar kenn lañ euh, li ma xam ci moom moom la xamit si man euh, te xam naa ni ci yaqin bu rafet li mu def yàlla rekk tax moo tax mu def ko euh, gis-gisam sori na lool te jamono ji ñu toll moom Cheikh Buur toll na foo xamante ne macha allah dara ñoru ko lu dul yàlla ak yonante bi ak jaar-jaaru mag ñi xalaatam yéeneem léppam mooy lan la ñuy def ba lislaam jóg lan la ñuy def ba lislaam am doole waxam yëpp loolu la lan la ñuy def ba tariqatul xaadiriya nit ñi dégg ko partout lan la ñuy def ba Cheikh bu ma Mohamed ñan ñu xam ki ñu yàlla jox lan la lan mooy liggéeyam donc loolu moom lay xëyee moom lay tëddee moom lay fanaanoo moom lay def lépp euh, di ko ñaanal rek te xam ni euh, cheikh bu yàlla ñu ko jox moom cheikh bu jóg ci lu bari euh, misaal ci jeunesse bi nekk fii ñu war ko bàyyi xel bu baax cheikh bu Mohamed Kunta bu la yàlla mayee aussi ñitu yàlla mooy def saa su ne muy jël kenn ci njabootam dugal ci moom dara muy jàllale message te it yàlla def na ko ci moom yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm di wax ne rek lii mu taxawal nii ku ne muy man di keneen mi ngi si sa xel waaye pas-pas bi ak doole bi ak lépp yàlla ci moom la ko yàlla jaarale ñun ñu tourné aw topp ci ginnaawam di ko jàppale ci lii te xam ne lii mu defal boppam la ko defal waaye ñun ñii la ko defal ñun ahlul kuntiyu moom yàlla mi am fay nag yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wéer gi yaram may ko sutura àdduna ak alaaxira ba nga xamante ni yéene yi mu am yëpp yàlla na ko yàlla mottali ci barke borom Ndiassane loolu rek lañ ci am di ko ci wax ñu yemale ko fii ba beneen rek asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf Kounta jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm subhaanallaahi walhamdulillaahi laa ilaaha illallaah